Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. J'ai écouté hier un de ses discours dans lequel il sermonnait la jeunesse pour les amener vers le droit chemin. En tout cas, c'est une porte, c'est une perte immense. c'est une perte immense que la terre de Touba lui soit légère que Dieu l'accueille au paradis le plus élevé. ah télé laaj yan témoignage nga mën a am ci moom. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom tabaraka wa wàcce ci moom yërmandeem moom Chérif Tilla la nitu jàmm la woon nit ku baax la woon jullit la woon. sunu njiit la woon eh, xam naa ko bu tuuti ndax communauté Mor bi liggéey naa ci lu bari ak moom ak ñeneen pour ñu nekk benn ñoom naaru Sénégal yi eh, ci loolu nit ku baax la woon eh, ku yaatu la woon ci diine bi naka noonu wax dëgg yàlla nit ku baax la ànd naa ak président Macky yoon yu baree bari dem seeti ko donc euh, ensuite mbokk la xarit la euh, sëriñ la mu ngi koy jaale mbokk yi ak taalibe yi yëpp yal na ko yàlla xaral aljanna jërëjëf. Euh,